après at boo xam ne an ubbi nañ ko hôpital bi ànd ko ak ñi ñu ko nekkal muy euh, agent yi nga xam ne ñun lañ fi affecte woon ak agent yi nga xam ne dañ leen recruter. li ma ci mën a wax daal mooy euh, ñun en tout cas en tout cas man en tant que euh, directeur hôpital bi am naa mbégte ci di wax ne hôpital bi bu mu ubbeek léegi ci at la toll waaye service yi ñu fi fekkoon. nga xam ne ci njëlbeen ko nu ñu doon wax ñetti service ay mën ubbi wala ñeent di def hôpital hospitalisation du jour loolu deux mois lañ ko def daal di commencé di hospitaliser boobaak léegi it service yi dañ leen ubbi benn par benn ba fii may wax ak mel na ne ñaari service ñoo ubbeegul euh, ñun buñ koy tënk ci ay këyit dañuy ne ñaar fukki service waaye ëpp na ko parce que am nañu ay sous spécialité ci yenn services yi te ñooñu dañu waroon nekk ay service boo jëlee lu mel ne neurologie ak neurochirurgie ñaari service yu bokkul la waaye ñun dañ leen boole ci benn service donc hôpital bi service yi bare na waaye ci tënk ñaar képp ñoo ubbeegul benn bi problème technique la ndax ndox mi nga xam ne muy muy euh, muy service su euh, dialyse bi néphrologie ndox mi nga xam ne day jóge ci service su dialyse day bare mais ñi doon defar hôpital bi waajaluñu woon ndox moomu fu muy jëm te nañu ko defee woon génne ko ci gannaaw mur bi ci gannaaw hôpital bi bu ñu ko bàyyee noonu mën na indi ay jéeya moo taxoon ñu ne ñu négandiku te def ay pexe pexe yooyu ñu ngi ci tabax nañu euh, benn réceptacle bu mag boo xam ne dañ koy tëj am ay puits perdus yaakaar naa ne buñ ko mettre en service la ca des mooy wax ak ministère mu yónnee ñu personnel ñu tàmbali service su dialyse bi kon yaakaar naa ne loolu mën naa bañ a yàggati bi ci des mooy service su euh, euh, grand brûlé grand brûlé boo koy xool des service boo xam ne service bu xaw a complexe la Euh, ndax euh, paj mu complexe la malaat yi ni ñu leen di manipuler rek xaw na jafe ba nga xam ne dama jàpp ne ña fay war ne lijjanti leen ñu dem foo xam ne gis nañu service buy dox di service su Grand Brûlé ñu def fa ak diir stage fa xool ba xam ñooña nañuy doxale lëkkaloog ñoom si ci liggéey bi bu ko defee bu ñu dellusee buñ ko ubbee dinañ mën a def lu ëpp ñeneen ñi li ñuy def ndax service su Grand Brûlé bii ñu am fii service la boo xam ne c'est un service aux normes li ci des mooy euh, personnel bi personnel bi euh, euh, gis ngeen ne bi ñu ñëwee njëlbeen gi yëpp ci ay formation la ñu nekkoon ci ak ay waxtaan ngir seet nu ñuy organiser woo xool nu ñuy nu ñuy doxale hôpital bi ba juboo ci li nga xam ne mooy essentiel bi mooy fexe ba ku fi dugg xëy na la ca la cay suñu warugar ñun ñu def ko nañ ko war a defee te it li nga xam ne mooy wàllu accueil bi muy wàllu hygiène bi muy wàllu maintenance bi ñu góor góorgóorlu yi ba bu ëllëgee kenn duñu ci mën a jam mën ngeen génn peut-être laaj patient yi fi nekk muy faj muy malaat yi fi nekk bare na ci ñoo xam ne jógewuñu Touba ñii ci yeneen région yi lu ñu jóge am na ci ñoo xam ne dakaar la jóge parce que délai délai de rendez-vous yi xëy na mooy gën a jege bare na ci ñoo xam ne foo ñuy jóge dafay sore lool kon waxuma la Touba rek waaye eh, ñi ñu wër sax yaakaar naa ne hôpital mën nañ ko jëfandikoo gis nañ ne hôpitaux yi bokk na ci li ñuy jàmbat nit ñi bu fa demee nit ñeen di recevoir nit ñuy waxe ak ñoom loolu nag dañ ci def liggéey bu rëy ba teg benn dispositif boo xam ne dañu koy xool bés bu ne di ko saytu itam ngir mu bañ am benn faay ndax waroo ñëw ci hôpital ñu lay jànni wala ñu la fay wax loo xam ne lu lay naqadi lay doon loolu moom ñu ngi ciy góor góorgóorlu entretien bi itam euh, lu am solo la waaye moom itam dafa laaj vigilance ndax ay nit rek lañ ko dénk boo bàyyee boo relâché yow ñoom ñu relâché donc euh, ñu ngi leen di surveiller régulièrement te fi ñu nekk nii euh, service bu ci am problème ci côté boobu muy ci euh, maintenance bi muy ci euh, muy ci euh, hygiène bi am nañu moyen ci benn logiciel bu ñu am boo xam ne ci saasi ka fa nga xam ne moom mooy point focal bi bu ko bindee ci saasi dana ci jot waa maintenance dinañ ci jot ki yore hygiène bi itam da ci jot ñu daal di ko saasi ci saasi loolu itam effectivement coût bu am sol bu rëy la waaye yaakaar naa ne pàcc bi la bokk euh, li ci des mooy prise en charge li nga wax mooy délai de prise en charge yi ndax malade dañuy ñëw léeg-léeg euh, toog lu yàgg balaa ñu leen di jël en charge muy ñu war leen opérer war ñu war leen defar ak leneen loolu itam dañ ci def liggéey def ci ay waxtaan yu yaatu séq kook ñu ñu ko séq war a séqal séq kook médecins yi ak spécialistes yi fexe ba itam waxtaan ak ñoom ci ñu décloisonner service yi parce que day mel na léeg dañuy ne man nangam ci loola laay yem ku ma soxla yi da may fekk sama service décloisonnement bu li muy indi mooy tey médecin yi di liggéey ñoom di àndandoo ci li ñuy liggéey mu am benn euh, euh, benn benn bu ñuy def boo xam ne tey bu malaat ñëwee urgence urgentiste bi xool ko ne cardiologue bi war na ko gis gastroentérologue bi war na ko gis fi saa si daf leen di woo ñoom dañuy dem fekk ko fa mu nekk loolu dara du ko du ko tardeel même bu dee guddi am na ñu ay pexe jëli leen ñu ñëw xool leen buñ leen waree opérer ci guddi gi ñu def ko loolu nag euh, réduction de prise en charge boobu yaakaar naa ne combat bu am solo la ñu ngi ci def ay jéego euh, pour le moment vraiment amuñu ci benn jafe-jafe. fii mooy service su laboratoire maanaam fi ñuy sayto Euh, déret jeeg yooyu noonu pour jàppale ñiy faj ñu ci seenum paj mu gën a yomb daal. liggéeyu labo bi moom macha allah mën nañ ne presque paramètres biologiques yi nga xamante ne médecins yi soxla nañ ko dëgg pour liggéey daanaka yëpp disponible na ci labo bi daanaka daanaka yëpp disponible na ci labo bi côté biochimie hématologie tuuti bactérioparasitologie bactériologie bi daal la ñuy waaj a gën a mu gën a taxaw daal moo des. feebar yi à Touba moom vraiment gis nañ ne. da feebar yu bëri kii nañ fi fës nañ fi xëy na dañoo xëy na jàpp ne problème mu tension gis nañ ko fii ak yeneen moom mais comme defaguñu ay études fii ñun personnellement buñ fi ñëwee léegi pour mën a joxe ay chiffres exact ne nii la tool wala nii mais feebar yooyu mel ni ay tension ay hépatite yooyu yëpp gis nañ ne xaw na fee bëri. je m'appelle euh, Moussé Yetumba je suis pharmacien biologiste je suis responsable de la banque de sang de l'hôpital Cheikhoul Khadim Ici, au niveau de la banque de ça, on a euh, la salle de secrétariat, là on, euh, là on communique avec les donneurs et on donne aussi les résultats pour les donneurs. On a aussi deux salles de manipulation, deux salles de laboratoire, deux salles de, de, de, deux salles manipulation pour manipuler les postes de sang. On a aussi euh, un bureau du responsable. On a aussi un salle, euh, aussi une salle de prélèvement pour les donneurs. on a aussi une salle d'enregistrement. c'est euh, euh, docteur Maymouna Mané euh, man la ñu dénk service su oncologie radiothérapie fii ci centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim bu bu Touba. service oncologie radiothérapie service oncologie radiothérapie service la boo xamante ne dafay faj xeetu cancer yépp maanaam ci kaw ba ci suuf bépp xeetu cancer moo ko tax a moo ko tax a jóg. donc service bi dafa dafa organiser wu en unité donc dafay am unité boo xamante ne lu ñuy wooyee radiothérapie externe la maanaam dafa am machine boo xamante ne da siy tëdd mu mu mu envoyé la ay laser pour lakk feebar bi am na tamit unité de curithérapie loo xamante ne laser la mais laser bi au kon muy jóge si si benn machine bi di traversé peau bi di dem lakk cancer dañ koy def directement si si si si cancer bi loolu en général ñi am cancer butitu njurukaay la am unité de chimiothérapie mooy ñi nga xamante ne dañ leen di fajee cancer par euh, perfusion ñoo xamante ne dañuy ñëw benn yoon ci semaine bi wala ñaari euh, ñaari semaines yu nekk wala ñetti semaines yu nekk ñëw te duñu defal leen perfusion ak benn unité unité bu ñu woowee physique médicale mooy ay euh, ndaw yoo xamante ne dañuy accompagner ñoo ñooy gérer suñu machines yi ñuy utiliser. hôpital bi lépp luñu yaakaar mi ngi ci hôpital bi mi ngi commencé ñi ci ci ñi ci bunt bi dañu lay teete di la yërëm di la laabiire ba boo egsee daanaka feebar bu nekkoon ci yow duutoo ko yëkk keroog ba ma ñëwee xel mu dal mi ma fi amee daanaka moom ma faj te bi may ñëw tiit naa sama njaboot tiit na waaye dalal giñ ma dalal dalal samam xel yiir ma yërëm ma jàppale ma te seexluwuñ ma benn yoon daanaka moom ma faj. malaat bi process bi waaw fii la ñuy commencé par la physique donc euh, muy fii mooy saalu dosimétrie bi fii la ñuy defee planification bi. Hmm. expliquez-nous fii en général malade bi ñun on le voit de façon dañ koy gis ci en virtuel donc bu ñu demee scanner ba jël image yu malade yi après dañ koy transférer fii ci ordinateur bi fii la ñuy waxee système de planification TPS fii la ñu gis malade bi de façon virtuelle fii la ñuy planifier dose bi nga xam ne moom la ko médecin yi prescrire ñu calculer en virtuel. Mm. waaw fii lañ koy njëkk a defee. bala muy dem ci traitement bala muy dem ci traitement fii la c'est la simulation on simule tout avant de traiter. man may euh, docteur Alioune Badara Dione euh, nekk euh, fajkat ci wàllu lépp li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu yax maanaam jëm ci wàllu jubbanti yax yi nga jëm ci maanaam ma faj arthrose yi nga xam ne mooy laal omi arthrose yi nga xam ne mooy laal moo ci ak yépp yi nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu damm-damm. donc lépp li nga xam ne daal day laal li nga xam ne yax la donc ñu ñooy nekk ci wàllu woowu ci ci faj bi fii ci hôpital bi. vingt 2022 bi si lañ commencé suñuy activités yi boo xoolee booba léegi li nga xam ne moo fi ñëw si ay malaat pour wàllu consultation boo xoolee dina toll maanaam si ñetti junni malaat yoo xam ne ñoo fi ñëw di consulter wu. bu loolu weesoo am na malade yi nga xam ne mooy ñi nga xam ne dañuy def ay accident biir Touba wala li wër Touba ñoo xam ne dañ leen di indi fii. ñu si bëri buñ ñëwee fii day laaj ñu leen opéré ñooñu nag opéré nañ ci loo xamante ne nii mat na ci ay ñetti téeméer malade yoo xamante ne nii opéré nañ leen fii donc à côté de loolu aussi am nañ ñu bëri ñi nga xamante ni dañu am ay problème arthrose ak oom wala arthrose ci moo ci yooyu aussi opéré nañ fi malade yoo xamante ni nombre de malade yu xaw a takku. maa ngi tudd docteur Abdou Nia euh, médecin radiologue chef du service de radiologie de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim Au service de radiologie bi ñu am fii euh, ñi ngi am cinq unités de radiologie euh, cinq unités euh, d'imagerie c'est-à-dire radiographie standard échographie unité de mammographie unité de scanner ak unité d'IRM appareil yooyu noonu am na njariñ boo xamante ni foo ko natt rek da koy weesu parce que service de d'aide au diagnostic la parce que par exemple médecin bi bu gisee malade bi Eh, di njot ci moom dara pour mu am firnde bi il faut nga demander rajo olof yi moom bon rajo rek lañ la ñuy dégg pour lépp mais rajo dafa bëri façon am na rajo standard mooy bu simple bi bi nga xam ne mooy mën a xool ay yax wala dënn ah, eh, am na écographie eh, boobu beneen modalité d'imagerie la am na mammographie mammographie pour xool pour saytu lu mel ni ay cancer du sein yooyu noonu am na aussi scanner scanner moo gën a avancé yooyu noonu moo jotal lim sànq ah. mais aussi am na IRM boo xamante ni moom moo mujjee génn mais moo gën a moom moo gën a euh, moo gën a mooy ëpp détails yu muy joxe daal ci yenn feebar yi maanaam